Ou sur OneXBet, OneX Games. Amusant à jouer, rapide à gagner. Jeu interdit au moins de 18 ans. benn waxtu ci seen première chaîne de télévision privée bu Sénégal di la 2STV yamook waxtu xibaaru bëccëg yile ngeen lu ñu dippil leen di fi jot a ruus ci yéen di fi jot a ci xibaar yile daal di koy door ak njiitu réew mi àddu ci li nga xam ni moom la ñu nemmeeku ci ayu bés bu njëkk bi jëm ci campagne électorale bi ñuy xaar ci jogante falub député yu 17 novembre bi di ñëw li ni mel nag gis nañ ni coow li bëri na lool moo tax njiitu réew mi bi mu jógee foofee ci Arabie Saoudite jaar ci Turquie yàcc ci Sénégal wax na ni nag nit ñi nañu dalal seen xel te ñu xam ne képp ku ci laale mbaa nga takk ci yoon dina dal sa kaw ndax dina def liggéeyam te du ci am sikki sàkk ñu déglu ko ci micro Cheikh ndax gisoon ne ci loolu la ñuy dem moo tax bi ñuy waaj ubbi campagne électorale bi ma waxtaanee woon ak sénégalais yi waaye tamit waxtaan surtout ak ñi nga xamante ne ñoo soobu ci kujje politique bi ci euh, élection yi ñu nekk. élection du lenn lu dul ku ne boo wooloo sa xam-xam gëm ne askan wi déggal na la nga mën a am dal goo xamante ne mën nga dem fu la neex waxtaan ci sénégalais yépp te ñu bàyyi sénégalais yi nag bu bés ba jotee ñu tànn tamit ci dal sénégalais yi yàgg nañoo wane ne que am nañ matu bu élection jotee ñu dem ci dal ci jàmm dem wote tànn ku leen neex teg leen fi nga xamante ne foofu la ñuy xëccoo ku mu nekk présidence de la république wala mu nekk assemblée nationale wala mu nekk ci commune yi loolu nag homme politique yi responsable politique yi ñoo war a nekk à la hauteur du maturité peuple bi maanaam matug askan wi ñi nga xamante ne ñoo nekk ci langue politique bi ñoo ko ñoo ci war a yëkkatiku ba egg ci fi nga xamante ne askan wi egg na ci waaye nag bu loolu weesoo dama yaakaar ne amul benn sénégalais boo xamante ne di nga wéet ndamoo ne dóor nga sa moroomu sénégalais ba gaañ ko wala sax ba def saafaan lu gën a lu gën a saafaano noonu kon ndam amul ci gaañ sa moroomu sénégalais moom bu dee moom dafa gëm ne fii la bokk wala ci langue géey la bokk ñun ñëpp ay sénégalais lañu waaye ñun ñëpp tamit ci askan wi la ñuy dem waxtaane ji ak ñoom te gëm naa ne nag ñi am programme am lu ñu waxtaane askan gi pour convaincre leen dal gi mooy seen avantage waaye du xuloo yeeg xeex yeeg fitna ji bi loolu xewee woo naa ministre de la justice moom ma rendre compte ma ne ko na yoon def liggéeyam quelque que ñi nga xamante ne foofu la ñu féete seen responsabilité bu impliqué ci lu ñu def nii yoon na def liggéeyam waaye yoon bu dee def liggéeyam bu mu ci ànd ak benn pression na ci ànd ak dàll def enquête ak dal ak tey ba mu wóor ko ne ku ñu toppee dara li nga def lañ la toppee waaye amul lenn loo xamante ne dañ la ko teg te defuloo ko ci lu ñeel campagne électorale boobu ba tey njiitu liste Pastef national bi di Ousmane Sonko teewoon na foofee ci Ziguinchor di fa amal ab meeting ca meeting am ma nag bokk na ci li liñ fa mën a jàpp moo di dindi loi amnistie bi bu fekkee listam am na majorité foofu ci assemblée waaye indi jàmm Casamance li ni mel nag ci njiitalu njiitu réew mi ak gouvernement bi nga xam ne ñu ngi ci jot a ñu jot ko gis sax ci li mu jot a wax njiital gouvernement bi dellu ci na ci li nga xam ne moom la fas yéene def moom ak ñu ñu àndal bis bu leen yàlla maye majorité foofee ca assemblée nationale ñu déglu ko ci micro Kaba Cissé ma ñu fa teewaloon. beaucoup de gens ont perdu la vie d'autres ont perdu leur intégrité physique d'autres avaient perdu la liberté d'autres ont perdu leur travail loolu lépp on ne peut pas passer ça par perte et profit moo tax le 17 novembre après avoir conquis une majorité écrasante Assemblée nationale bokk na ci ñiy njëkk a wala bokk na ci ñiy wote mooy de retirer la loi d'amnistie impunité mënul am te bu dee dans une société les gens mën nañu làqatu ci gannaaw état pour utiliser les moyens d'état pour comploter contre les gens, pour tirer sur les gens, pour tuer des manifestants désarmés. ñu pare na loolu yëpp nañ ko effacer comme si ça n'avait jamais existé loolu yàgg-yàgg dina xewaat ci dëkk bi. une loi d'amnistie qui crée l'impunité pour des assassins ñun d'accord ñu ci et tous les dossiers qui sont sur la table de la justice nañ ko génnewaat teg ko. leeral ko ba mu set wicc ñu xam lan la ak kan la. ci politique gu yees gi ñu teg. bi ñu àndee président Bassirou Diomaye Faye ci nguur gi ba léegi gis nañ ni wàllub urbanisation def cee am cër mu waral sax ñu organiser ab forum daal di koy dippee métier yi nga xam ni moo jëm ci li ni mel loolee nag solo si mooy ñu méngale ko jamono waaye xarala yu yees yi le mun ci am ay lu ci ruus loo xam ni day jëriñ ndaw yi rawatina ñi nga xam ne ñoo ci fekk féete te ñu gis bu baax ni tabax dafa am solo su mu def ci réew mi rawatina nag ci gafa lim ciy contribuer ñu def déglu reportage yu Fatima Tall ak Libaas Landir ma fa teewoo forum lañ daal di amal niki tey ngir waxtaanee rek mbiru innovation ak investissement ci xarala yu yees yi jëm ci secteuru bâtiment ak travaux publics BTP Mouhamed lamin Sarr nekk expert immobilier daal na dellu fii ci solos xarala yu yees yi ci biir secteuru BTP. loolu dafa nekk loo xam ni lu war la. te dafa nekk loo xam ni mënul ñàkk la parce que jamono boo ci nekkee da ngay dox da ngay ànd ak moom di dox ni muy doxee te fi mu nekk nii euh, Sénégal dafa nekk bërëb boo xam ne place boo xam ni mbirum tabax daf fi daf fi daf fi sax daf fi taxaw ñëpp xam nañu Sénégalais ku bëgg a tabax la donc loolu nag bu amee ñi nga xam ni ñooy euh, seen métier mooy tabax duñu war a di seet li nga xam ni ci adduna bi noonu la di mbir mi di doxee ñu fexe ba euh, jumtukaay yu bees yooyu am technique yooyu bees am ñu fexe ba ñoom aussi ñu mën ko xam ko mokkal ko fexe ba dugal ko ci seen liggéey pour que Sénégalais yi nga xam ni ñoom ñooy jënd kër yi mën ci profité. lu jëm nag ci njëgu tabax bi moom daal dina xamle ni faw rek ñu daal di dem ci ay éco construction ngir rek loolu la te dafa daal fu mu nekk nii autorité yi nga xam ne tey ñoom ñooy yore mbir moomu ñu ngi saytu possibilité yooyu yëpp li mel ne éco éco construction aussi nekk na loo xam ne boo demee ministère de l'urbanisme et de l'habitat ñoom nekk na loo xam ni euh, vraiment euh, ñu ngi ciy liggéey am na ñu xar ñu fa nekk loo xam ni euh, itteewoo nañ ko ba am nañ yaakaar ni wax dëgg yàlla éco construction bi niñ ko niñ ko niñ koy appliquer dina mën a am njëriñ ci réew mi te incha je pense que. finalement dina ko mën a intégrer sur tous ces projets nga xam ne ñoo koy tàmbali di ko def ci zone yu bees yi. ci jamono joo xamante ni changement climatique bi maanaam coppite jaww ji doon na rek ab jafe-jafe daal dina xamle ni éco construction mën na rek doon ab solution. changement climatique yi moom dafa nekk loo xam ni kenn mënu ko kenn mënu ko kenn il faut ñu boole ko ci suñu liggéey boo gisee léegi inondation yi ngay gis gis intempéries yi ngay gis ak yooyu yëpp c'est que changement climatique bi fépp la nekk ci àdduna bi dëkk boo dem yaa ngi fay gis tout le temps population di jàkkoonte ak ay difficulté ak yu mel noonu ba tax na nag ñi xam ne seen métier mooy tabax aussi war nañu ci seen euh, ci seen liggéey ñu am farlukaay bu doy boo xam ni danañu mën a intégrer euh, données boobu fexe bay tabax tabax yoo xam ni dana mën a résister à ces variations climatiques yi nga xam ne léegi dafa nekk loo xam ni kenn mënatu ko kenn mënatu ko moytu. secteur u BTP nag am dayoo lool ci économie bu senegal waaye secteur bi nag dafa am rek loo xamante ni daf koy gàllankoor bokk na si nag ñàkkum cadre institutionnel waaye itam ay jafe-jafe ci wàllu financement ba ci accès ci wàllum crédit bi ak coût bu élevé bi nga xamante ni moom lañ koy daal di jote Fatima ngir ñoŋal liggéeyam télédiffusion du Sénégal di TDS direction bi ànd na ak li nga xam ne ñoo di conseil d'administration bi ak yenn ci ay liggéeykatam amal ay waxtaan foofee ca sali ngir mën a tekk yoon bi ñu leen yóbbu fii léegi 2025 ñu am li nga xam ne bëgg nañ ko ci seenu liggéey gën ci gis seen bopp ci wàllu xarala lu yees yi ak coppi tey jumtuwaay yi nga xam ne ñu ngi ko doon yore ngir amal seeni liggéey waaye li ñuy soxla ci wàllu koom ba askan wi fu ci waay mënti nekk yéeg seen liggéey ñu déglu seen njiit li di Aminata Sarr ci micro du Diop. ñu ñëw tey waxtaan euh, waxtaanee li nga xamante ni mooy euh, vision bi nga xamante ni DDS euh, war na ko porter. Euh, ñu ne war na nekk euh, xaar kanamu Sénégal ci wàllum souveraineté wàllum xarale yu yees yi euh, ñu war a def ay services yoo xamante ni tey sénégalais bu nekk dina ci mën a gis boppam fii ak 2029 noonu la ñu décliner un peu la vision ñu ñëwaat daal di xool yan objectif SMART ñoo war a mën a nekk ci ginnaaw ak yan axe ñoo koy appuyer ñu def ay groupe de travail yu am solo waxtaanee ko génnee objectif yooyu noonu daal di wax. que ni lii nga xamante ni moo gën a fës mooy yeesal xëy na euh, suñu infrastructure yi ñuy liggéeyee xarala yi. Mm. waaye tamit war a euh, dooleel li nga xamante ni mooy suñu euh, koom-koom nu ñu war a def ba am koom. Mm. bu nga xamante ni tey mooy benn ci mission TDS mooy offrir service innovant yooyu noonu moo ñu koy mën a tax def. ak euh, li nga xamante ni mooy yokk suñu euh, visibilité ñi ñi gën a xam kan mooy TDS euh, ak ay J journée de porte ouverte JPO ak ay forum yu nga xamante ni acteurs yëpp sax xëy na dinañ mën a daje ñu waxtaane li nga xamante ni mooy suñuy bëgg-bëgg ak suñu axe yu nga xamante ni mën nañu boole ngir ñu mën a liggéey. ñeneen ñu dajaloo amal ab lël bu yaatu mooy ñiy liggéey ci wàllu koom ñoom nag la ñu doon waxtaanee moo di naka la Sénégal di def ba moom boppam ci wàllum lekk waaye it loo xam ne day yombal seen i nekkin ba li ñuy xaar ci seen liggéey mu yomb li ne mel nag gis nañ ni koy gën a yombal moo di Sénégal daal di amal digg yi nga xam ne am na ko ci digganteem ki moo ki yeneen di réew yi waaye jox leen jumtuwaay yi ñu soxla ba it seen liggéey bi yomb loolu ñu déglu leen ci micro Mamadou Diop. waaw solo assemblée générale bi nag lenn kese la euh, bu ñu falee président bu defee ñetti dafa war a woote assemblée pour rek ñu renouveler lii nga xamante mooy bureau bi. ci biir euh, ndaje bi tamit profité nañ ci pour mën a waxtaanee benn thème boo xamante ne soxal na ñëpp surtout soxal na ñi ñii nga xamante ñooy njiitu réew bi mooy souveraineté alimentaire ak régulation. ndax ñëpp xam nañ ne souveraineté alimentaire ñoom moom la ñu bëgg te moom la ñu tënk moom mooy doon ci lii nga xamante mooy seen vision mais souveraineté alimentaire tamit dañ koy gunge à travers benn régulation de marché ndax lépp nga xamante ne bëgg nañ ko def fii suñu réew. dafa am mbir yoo xamante ne Sénégal daf ko signé te laata loolu tey la donc li nga xamante ne moom la ñu bëgg dañuy def en sorte que mun a méngoog li nga xamante ne signé nañ ko pour mu bañ am confrontation entre li nga xamante moom lañ décidé fii ci suñu réew ak li nga xamante ne signé woon nañu ko lu yàgg te Sénégal da war na ko respecté ndax Sénégal bokk na ci organisme internationaux yi bokk na ci lii nga xamante ne moom mooy organisation mondiale du commerce donc administration du commerce bi nga xamante moom mooy def xaar na tam ci autorité yi ñu gën ko jàppale ci lii nga xamante ni mooy liggéeyam ndax nit boo bëggee mu jàppale la nga atteindre ses objectifs da nga koy jox les moyens de sa politique moyens de sa politique nag mooy li nga xamante ne def nañ ko en terme de dotation financier en terme de dotation matérielle maintenant administration de commerce war nañu mën a gunge seen agent gunge seen i agent nag mooy recruter contrôleur ak commissaire ak vérificateur yu doy gunge seen agent moo tax ñu xoolaat lii nga xamante mooy suñu condition de travail ndax bu mu la nee euh, euh, Euh, cent dix contrôleurs ñoo nekk ci territoire national pour ñu def liggéey boobu yëpp ak conditions yi ñu koy liggéeyee loolu métti na ndax bu ci nekk mënuñu ko jël ko ci kanamu benn boutique wala teg ko ci kanamu benn daara ju mag ja nekk foofee ca Sine Saalum ñu duppee ko El Ibrahima Niass ndongo ya fa nekk ñooy nakarlu yéexu ubbite bile nemmeeku nañ ko it ci yeneen daara yu kawe yu nekk ci biir réew mi le tax ñuy sàkku ci jëwriñ di leen daboote di docteur Abdourahmane Diouf ak it seeni recteur boobe ñu geesu leen ci nu mu gënee gaaw balaa muy gën a yéexit ñoom ñooñee ñu ngi àddu ci micro Ibrahima Ndour. yi dañoo ñëw fii ak xol bu naqari ak njàqari gu mat sëkk ndax kat dañoo xam ne bañ tijjee ba léegi depuis octobre université yëpp suñu naataango yëpp ñu ngi jàng boobu mooy université Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass te loolu dafa doy. doy doy doy. gannaaw loolu buñ ci weesoo. dafa ñëw ci ay mbir yi nga xam ne moom lañ mën a moom lañ gis fii nii di gis li nga xam ne ay licence yoo xam ne dañ koy def ay 4 ans jàpp 5 ans 6 ans te loolu nekkul yoon du yoon du dëgg du yoon loolu moo gën a tax tamit encore université Sine Saloum da gis ne ay étudiants yoo xam ne nombre yi fi bàyyi fii nii am na du toll benn université bi nga xam ne dañuy bàyyi te loolu étudiant bi dafa am droit suivre rêve li nga xam ne moom loolu la bëgg donc nag loolu dañuy oo ki nga xam ne mooy jëwriñ bi ñu jënk wàllum njàng mu kaw mi monsieur le professeur Abdourahmane Diouf bi nga xam ne moom moo ñu jiite ñun ñëpp ñu di ko oo ne ko monsieur le ministre ñun kat dañoo bëgg a jàngi soxlawuñ leneen laajuñ leneen lenn rek lañ soxla mooy dem jàngi parce que place étudiant nekkul këram hmm. place étudiant ca jàngukaay bala

bu ñu weesoo loolu da ngay gis ne bañ amee fii vacance ba léegi nii ba nu ñuy tijjee ba jàpp octobre tey jii gis ngeen yéen di ngeen ñëwee ci campus ak li ngeen fekk bu ngeen paree da ngeen ko gis par vous même si image yi a xam ne moom ngeen wane ba léegi ni ñuy wax ak yéen ndox bi fii dafa fees del table yi doxul ventilateur yi doxul climatiseur yi doxul douche yi doxul foos yi fees donc dafa am loo xam ne c'est déplorable te dafa naqari lool xol dangul xol na mënu koo dégg donc na mënu ñoo ñëw ba a def lii ak lii ñun lijjantiwuñ loolu laajuñ loolu lenn lañ soxla mooy ñu tëjee suñu campus bi donc ñu ngi oo nag ñi nga xam ne mooy autorité yi nga xam ne ñoom lañ jiite ci université bi rawatina ñu jiite ci ki nga xam ne mooy madame le recteur mi ngi ñu wax ne ko ñun nag lenn lañ soxla mooy nañ ñu tëjee suñuy campus ñu dem jàngi laajuñ ko leneen demandé wuñ ko leneen ñu tëj suñu campus nu mu gën a gaawee étudiant Hussein étudiant Hussein mënee na leneen lu dul négocier nag ndax nag jub jubal jubante bi nga xam ne waa ministre bi ñu ngi koy oote li nga xam ne gouvernement bi ñu ngi koy oote dañ ko soxla fii ci université bi moytu leen garab yu bon yaa ngi fii ci biir Afrique di lore ba ci sax di faat ay bakkan dina mel ay cadre docteur Fall lañu di ko xam-xamam màcc ci wàllu garab rawatina faj ma ngi ko doon àddoo nag ci ñi nga xamante ni ñoo jàng bay génn école ci wàllum faj ak it jaay garab ñoom nag artu na leen ci ñu moytu li ni mel waaye it bokk ci ñi nga xamante ni ñooy lewal garab yu bon yi ci biir Afrique ñu déglu ko ci reportage yu Bokar Kandé. di ko wax ay agent de santé délégués médicaux ak ay vendeur ca pharmacie ñoom ñiy doog a génne école war a bàyyi xel bu baax ci foo médicament yi bëri lool tey ji ca Afrique. dafa am benn revue bi génne fan yi di wax ni faux médicament yi maanaam garab yu baaxul yi day rëy at bu ne fii ci Afrique lu ëpp ñaari téeméeri junni ak juróomi fukk nit. li gën bari bëri nag ay garab la yu mel ni nag antipalu antibiotique ak anti antiparasitaire kon yéen war ngeen ne veiller ci loolu garab yooyu waru leen bàyyi benn yoon mu jàll. faux médicament yi nekk ab danger phénomène bi ni mel nag ñu dal di koy nemmeeku fii ci Kolda xeetu faux médicament bu ne ñu ko fiy jaayee. fépp ci Sénégal surtout fii Kolda. man damay recevoir ay patients ñuy jël seen médicament au marché wala dañ jël en après dañ ci ay problème de santé yu grave faux médicament day yàq lu bëri ci yaram day yàq foie bi day yàq euh, rein yi après da ci am insuffisance rénale insuffisance rénale na la yaakaar naa ni bu fekkee ne Dakar ci boppam moo rëccul ci loolu noonu yaakaaruma ni dëkk bu mel ni Kolda dina ci rëcc. parce que ak organe de contrôle yi ñu am yëpp Dakar am euh, service de sécurité yi. malgré présence yooyu noonu. xeex faux médicaments yi nekk ab combat ci àddina bi wërngal këpp lenn ci solution ñu proposé ci cérémonie bii mooy pharmacie yi nañuy recruter nag ay agent yuy mën di xàññee garab yu baax ay délégué médicaux kon ak vendeur de pharmacie yu ñu war a tàggat bu baax a baax mu mel ni nag promotion bii génn. fii ci institut Yasalaama. mu ñuy wax lauréat yi c'est ñu mun a vraiment góorgóorlu liggéey parce que sans que invité d'honneur bi wax na loolu mu ne muy ñaan lauréat yi ñu def très attention surtout si faux médicaments yi parce que faux médicaments yi lu ñuy rey si nit chaque année c'est je pense que appel boobu ñoom dégg nañ ko. faux médicament yi di def ay ravages indi loo xam ci askan wi Kolda nekk diwaan bi ci exposé lool ndax position am nekk lool. ñetti xeewa Bokar Kande di ko jaajëfal ligu kën fu bu Jurbel ñoom nag dañuy naqarlu li nga xam ni moo di nekkeen mbaa sax taxawaayu ligue bi ëmb ñiy def wàllu kon fu fépp ci senegal lañuy ñuy ñaawlu nag nee nañu moo di ñàkk yamale ak leeral bi ci liggéey yile dina mel nag seen njiit bi moo ko xamle ci ab jongante bu amoon foofu ca Mbàkke Pape mbay moo ñu fa teewaloon Fallou Galas euh, Seck président ligue régionale de Diourbel fédération sénégalaise de kung ci njiital ligue régionale kung fu bu njaareem ay mbir yu jaar yoon seetlu nañu ko ci doxalin wu soxal fédération sénégalaise. fédération sénégalaise de kung bi ñu am ay institutions yoo xam ne dañ koy teg ci kaw lenn ci ay membres am ba ci région ligue bi ñu nekk nii muy ligue de Diourbel ay institutions yu bari yu nga xamante ne donc ñu ngi koy teg ci seen kaw donc loolu moom moo tax tey jii ñu dajee fii ci open de presse bi. pour dénoncer yi nga xamante ni yëpp injustice la boo xamee ne fédération sénégalaise de kung-fu mi ngi koy teg ci kaw ligue de Diourbel ak yeneen club yi nga xamante ni aussi partout au Sénégal. moom mi ba tey di naqarlu ñàkk leer gu am na ci anam bi ñu saytoo kayit yi ak yenn xibaar yu soxal club yi ci bokk. ñun lépp li nga xamante waroon nañ ko def pour installer fi ñu waroon a bind demande bu ñu waroon def adressé ko fédération adressé ko inspecteur du sport yëpp def nañ ko. convoqué nañ leen demande leen ay données. Euh, laaj na leen ko ay yoon yoo xamante ne duñu leen ko laajee dañuy gàntal wala ñu ñaan délai. depuis lors amul benn euh, réunion comité directeur boo xam ne teew nañ ci. amul benn information wala benn programme boo xam day jàll fédération boo xam dañuy si boole li si gën a yéeme mooy euh, ñi ngi waajal assemblée général def nañ seen liste. liggéey yi ñuy liggéey aussi duñ ci duñ ci duñ ci boolee ñun ba pare ñi ngi préparé ne dañu war a dem assemblée boo xamante ne dañuy génnee benn ligue te ligue boobu loo ci xamul mooy ligue bi nga xam ne moo ëpp doole fii. ci ci ci Sénégal. ligue régionale bu njaareem di xam leen ni ginnaaw jéego yu bëri jot na ko def ànd ceeg càkkute fii leer ba fi mu toll nii ay mbir yu am solo lu ci mel ne bordereau de versement yi ba fi mu toll nii xamuñu li ci xew lii indi na xel mu tey jiixi jaax ci ni fédération bi liggéey. dañu dem ba ci fin décembre deux mille vingt deux ñu ne dañuy euh, tëj compte fédération bi le dar le 31 décembre te léegi képp ki nga xamante ne afflé woo ci diggante boobu doo mën a participer ci élection yi war a am 2023 bi ñu waxee loolu ñi nga xamante ne am nañ possibilité ñëpp dañoo profité ci délai boobu noonu bref délai ñu ñu ñu versé seen bordereau de versement. ñooñu bi ñu versé man mii di wax nekk président ligue bi ak euh, vice président bi même directeur technique bi ñoom ñëpp seen i bordereau mi ngi fii yoo xam ne 2022 la mais bi ñu ko defee envoyé leen fichier bi. envoyé ko trésorier envoyé ko secrétaire général bi pour ñu defaral ñu suñu bordeaux dañ ñu naan ñu tey suba ëllëg ngoon tey suba ba nii ñuy waxee ñoo amuñu benn bordeaux boo xam ne jox nañu ko rapport financier bi nanguñu ko publier ci groupe bi dañuy tànn ay club di ko envoyé parce que bëgguñu ñëpp gis ko malheureusement jot nañ ci biñ ci jotee biñ ko saytoo gis nañ ne bëri na loo xam dañ ko war a rectifier. ligue bii di sàkku ci ministère bi yor wàllum tàggat yaram ak kilifa yi ci man dara ñu jóg wut ci peq yi ngir saafara jafe-jafe bu ni mel ba ñu mën a am doxalin bu mucc ayib te leer nañ ci biir fédération sénégalaise bu kung fu. Pape Sayar Mbaye di ko jaajëfal ak képp ku jàpp ci jotaay xibaar yi ba mu yemb rédaction bu 2 di leen jox dig daje juróom-ñaari waxtu ak xibaaru marax yi la fileeg boobu wéy di ñu topp ci suñu programme jërë ngeen jëf.